Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. nongi len di nuyu bu baax di len ziaré di len ndokkel ci bis bu tedd bi di len balu ak di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu ci suñu jaamu yalla yépp diko ñaan mu jéggal ñu suñu bakkar diko ñaan subhanahu wa taala mu sàmmnu sammal ñu suñu kilifa yàggal fi suñu kilifa gii di Cheikh Mouhamadul Mountakha te sàmm ko te yokk ko wér nu dellusu rekk ci waxtaan yoo xam ne tàmbali woon nañ ko muy bunt buñ ubbi woon jëmale ko ci amradul qulub te mooy jàngoro yi nga xam ne jàngoroy xol la mu doon loo xam ne jullit bi waxtu wu nekk da koy war a bàyyi xel ndax jàngoro la yoo xam ne mën naa yàq ay jëfam man koo xañ tuyaaba yu bari mën na koo sax yóbbee mujj gu ñaaw wala iyaazu billah ni ko sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu waxee ci masaalikul jinaan waxtaane woon nañ benn ci jàngoro yooyu muy alkibru te muy rëy tey ñu bëgg a dellu ci beneen jàngoro boo xam ne mooy arriyaa te mooy njistal ñu bëgg fàttalente rek ci loolu di riyaawu fàttalente mooy lan fàttalente li nga xam ne am na ko ci ay lor ngir ñu gën koo mën a daw fàttalente ci li nga xam ne noonu lañ ko war a jéem saafara ci koo xam ne yàlla na nattoona la ko li nga xam ne mooy njëstal nag mooy rekk nit ki di jëf jëf joo xam ne suñu boroom la ko war a jëfal waaye mu di ci bàyyi xel doomaadama yi di leen ci gàndiku kon mën nañ ne ar riyaa dafa safaanoo ak al ixlaas te mooy sellal li ngay def nga def ko ngir jëmmi suñu boroom képp baatum njëstal buñ ko seetoo mu ngi jóge ci gis kon di def dara ngir nit ñi gis ko loolu njëstal la ni nga xamee ne baatum déggtal mu ngi jóge ci dégg mooy la ngay def di ko def ngir nit ñi dégg ko kon li nga xam ne jullit bi da koy def suñu boroom rekk war a tax mu def ko waaye mu bëgg nit ñi yëg ko te yëg googu day bëgg ñu tagg ko ci day bëgg ñu màggal ko ci day bëgg ñu jox ko ci ab cër moom lañu sëriñ bi di wax ne ama riyaau fa huwa an yasal fata li xasdi taazimil wara in thabata mu ne nit ki danay def jëf joo xam ne lam ci jublu mooy nit ñi màggal ko rek أو جلب خير أو لدفع الشر كطلب المال وخوف الضر ولا لم يدف دا شيء بق نجاريني أدنى بق جي موج جي أي لور تيال رك ورا تخ مدفكو دي ود دي ود ألال ولا مو رجل لوكا تفك كون jullit bi li muy def da ko war a da cee war a jublu suñu boroom da cee fara wut ngërëmul suñu boroom loola bu ko deful waaye di gestu di bàyyi xel doomu aadama yi loola njëstal la moo tax sëriñ wax ne kon nit ki la muy def donte nit ñaa ngi koy gis waaye moom ci xolam defu ko ngir nit ñi loola bu boobaa du bokk ci ngistal mu waxoon ne waman yakun lil xalqi zaltifaati fi saayihi fa biriyaa in aati koo xam ne dangay gestu di bàyyi xel nit ñi di leen gendiku ca la ngay def nee na kooku mu ngi ngistal doonte gisuñu ko donte dafa wéet moo tax mu ne naa am wa in xalaa donte sax la muy def ci wéetaay la koy def waaye ma nga fas ci xolam ne mën naa am ña nga naan maa ngi def nangam wala danañ jàpp ne kat maa ngi def nangam nga xam ne nangam jooje wala yaa ngi xalaat bu la fi nit fekkoon dana la ci jox ab cër bàyyi xel googu ngay bàyyi xel doomu aadama yi ca la ngay jëf loola njistal lay doon waaye nag nit ki su demee ba bàyyeetu xel doomu aadama yi ci li muy def donte danañ ko gis donte danañ ko ci tàgg donte danañ ko ci yëkkati loola kon doonatul njistal bi nga xam ne moom la ñuy ŋàññi moo tax mu ne wa illaa fa yuad min muxlisil ibaadi xaythuma qasad saa bu demee ba gëstootu doomu aadama yi ca la muy jëf kooka day nekkatul koy ngisal walaw saa baynal wara kullihim kullihimi li kawnihim fi qalbihi kal adami kooku su fekkee ne doonte ci mi ngi nekk ci digg nit ñi waaye xolam la muy def yàlla rek la koy seedeel moom rek la ci jublu kooku kon lu muy def dootu doon njistal kon bari na loo xam ne euh, du njistal ndax nit ki jubluwu ko ca donte da ko cay am mooy euh, nit ñi di la tagg walla di la sant ci jëf joo jëf loola taxul mu nekk njistal su fekkee ne yow ba nga koy def suñu borom rekk nga jiital ndax abu zar radiyallahu anhu laajoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danga gis nit mu jëf-jëf joo xam ne aw yiw la nit ñi di ko ci sant yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko tilka ajilatu bush ajilu bushra al mu'min nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko laajee ne ko nit dana jëf-jëf joo xam ne moom ba mu koy jëf ñu tàgg ko ci taxut ñu gërëm ko ci taxut ñu yëkkati ko ci taxut waaye nag sant nañ ko ca tagg nañ ko ca yëkkati nañ ko ca mu ne ko loolu day mbégal mbégte mu ko yàlla di bégal ci àdduna mbégte moo xam ne day jiitu mam koy bégal àllaaxira day mel ne daal mbuuñaa lañ koy mën a lu ko suñu borom di defal la di ko fayee tàmbalee ko ko fayee fii waaye kon mooy kooka ba muy def loola jubluwu ca woon tagg woowee mu ca amee du doon njisal su fekkee ne nit ki dafay def lu baax lu nit ñi gis waaye moom ngir rekk ñu roy lu baax loole muy def moo tax mu feeñal ko bu boobaa dana ca ame aw yiw woo xam ne ña ko ca roy lañ cay am ci yiw moom dana ko ca ame bu du bokk ak li nga xam ne moom la ko ci suñu boroom di faye kon daal li nga xam ne moo mooy mooy dëgg dëgg njistal mooy nit ki la muy def rek ngir ñu tagg ko ca ngir ñu yëkkati ko ca ngir ñu joxati ak cër boo xam ne day bëgg ñu sukkandiku ca loolee muy def te loola suñu borom la koy defal loolu mooy njistal loolu nag moo mat a moytu lool kon nit ki di wane ak cawarte ci jaamu yàlla te yàlla rek tax wala mu gis ñu nit ñu baax ñi di def lu baax mu jéem leen caa roy di leen toppandoo ca mbaax googe loolu duñ ko jàppee njistal kon daal njistal mbir la moo xam ne ci xolub nit ki lay njëkke ndax mooy bëgg ba muy bëgg ñu di ko yëkkati ak bëgg ga muy bëgg ñu di ko di ko tagg loolu nag dafa doon loo xam ne dafa naqare mucc ci jamono ndax jamono ji mooy léeg-léeg mooy ñoddi nit ñi ci ñuy njistal ndax boo seetee léeg-léeg ñun jiital gi ñuy jiital jëf yu fés dana tax nit ki di fësal ay jëfam léeg-léeg ci ngir yëkkati gañ ko cay yëkkati ak tagg wañ ko cay tagg ndax nit ñi daanaka lu ci baree bari li fës la ñuy gën a seet ci li nga xam ne lu baax la te fesut kon nag léeg-léeg sax nit ñi danañu gën a xiir jullit bi ci ay jëfam bam di ko fésal te loo xam ne waru koon a fésal kon fi jamono toll ak maslaa mu bari mi mën naa ñoddi nit ki ci muy wan nit ñi ay jëfam ngir ñu gën koo mën a may maslaa ak ngir ñu gën koo jox cër bu boobaa loola day nekk ngistal ci moom <coughs> kon bokk na ci li nga xam ne it dana xiir nit ñi ci ñuy ngistal fi jamono toll ci lépp xewitu di wane lu ne lu ne ñu di ko wane ndax jamono lim indi ci ay xarala tax na looy def àdduna bi man koo gisandoo eh, man koo déggandoo man la caa daal woo ne la gis naa def nga nàngam yëg naa ne def nga nàngam ba tax na ñu bare bari loola mën na leen a jóo ci lu ñuy defati di ko wane xam nañ léegi dangay gis koo xam ne moom dong day nekk ci barab di ñaan bay jooy waaye di ko filmer bu noppee dugal ko ci Facebook bi ca moom ñaan googe suñu borom rek la ko jëmale waaye doo xam lu tax muy bëgg nit ñi xam ne doon na ñaan fii wala mi ngi barab sàngam loolu yépp léeg-léeg fi jamono toll mooy xiirtal nit ñi ci ñuy wane lu ne ci waxtu wu nekk léeg-léeg sax dangay gis koo xam ne day ziyaare kilifa yóbbaale ab téléphone di ko filmer te kilifa gi du ko yëg loolu di lu doy ndax kilifa gi nga xam ne mi ngi waxtaan ak yow te waxtaan wa ci yow la ko jëmale ah nga di ko génne àdduna bépp di ko dégg donte dara lu aay du ca nekk waaye nag du woon jubloom loola ngir bëgg rek yow ba nga koy def sa bopp tax nga di ko def ngir am cër buñ la jox ak fuñ la teg loolee yépp dafa mot a moytu te dafa tasaaroo Euh, ra loolu lépp tekkuwul nag ku ku ku def dara wane ko ci internet bi dangaa ngi sal lu tekkiwul loolu ndax tanaafus ci lu baax rawante ci lu baax ngir nit ñi roy ko kon jublu ga moo ci am sol waaye da ci am ñoo xam ne nag bari gim bari ak tas gim tas moo tax dañ ciy toppandoo ba far barab buñ nekk nga xam ne dañ faa war a teewlu war faa wéetal yàlla sax dangay gis ñuy ñu koy ñu koy génne di filmer seen bopp di ko wane di ko di ko tasaare euh, loolu nag buñ tolloo foofu euh, te am ñoo xam ne ci loolu sax dañ ciy jaare moom di ci wut lu ñu am waaw di la di la di la fësalal say jëf di la tagg ngir nga loolu nag ku yàlla dimbalewut mën naa tax loo defati fësal ko yeggale ko ci ña nga xam ne buñ ko yëgee ñoom tasaare ko yëkkati ca sa daraja boo demee ba jublu ca loola rek bu boobaa day wàññi danga nga ca waroon a am ci ay ay li nga xam ne nag am na ko ci ay lor ndax jàngoro la ju nekk ci xol joo xam ne day bari lool lu muy yàqal yàqal nit ki moo taxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doon wax ne li ma gën a ragal ci yéen nga xam ne moom laa gën a ragal ci masiixu dajjaal sax mooy li nga xam ne mooy ba bokkaale bu nëbbu mooy nit ki dana jóg julli di rafetal julli ga lool ngir xam na ne ñi ngi koy xool xam na ne ñi ngi koy bàyyi xel nga xam ne rafetal ga muy rafetal julli gi bàyyi xel gañ ko cay bàyyi xel tax na mu gën caa sonn ne na loole day mujj nekk ba bokkaale bu nëbbu ndax sëñ bi sax day wax ne def ngir nit ñi moom bokkaale la bañ a def ngir nit ñi nga xam ne dañu su ma defee ñu wax ko loolu kon mooy mooy ngistal moom gis nga fa ko yeggale maanaam ngir bu ma defut xëy na bu ma defee danañ ma ne damay ngistal ma bañ a def kon nit ñi tax na defatoo loolu nag dafa dafa dafa motamaytu lool يونس صلى الله عليه وسلم دا فوخني الا اخبركم بما هو اخف اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل كون يغني نيغ لاي باي خيل تخ nga gëy gëna fank sa julli da koy gëna rafetal te defoko ngir subhanahu wa ta'ala way dang ko loolu njësal la loolu sax dañ koy yég yegg génne ci euh, bokkaale bu nëbbu damay wax ne ñi nga xam ne dañoo yor yaru sëriñ bi nga xam ne lu ñuy def dañ koy def ngir yàlla te duñ ko gis duñ ca duñ ko wane buñ daan julli it seen julli dañ koy def rek ni leen ko yàlla digale waaye duñ ca nekk ëccëg duñ ca def yoo xam ne day tax ñi di ca wanewu ba tax ñi xamut loolu ñi ko déggul dañ daan wax julli murit fekk te julli murit mooy rek yow ku gisoo julli gi def ko ko rek te yàlla tax ba nga ko defee it génne ko ci sam xel doo def doo ko def ngir ñi may xool ak lañ lañ ma cay wax waaye da nga koy def si yàlla yàlla rek subhanahu wa taala tax loolu nga xam ne lor yi nga xam ne am na te bari lool nag ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne moom laa gën a ragal ci masiixu dajjal moo tax bi di wax ne li ci yàlla tëkkoo dafa dafa dafa rëy dafa tar ni ci yar suñu borom subhanahu wa taala tëkkoo dafa tar ndax suñu borom bu demee bay tëkku ñuy julli waaye da limaale melokaan ya ñuy jullee mooy dañ cay njëstal wa waylul lil musallin alladina hum an salatihim sahun alladina hum yuraauna wa yamnauna al maun mu bokk ci lor yi nga xam ne njëstal am na ko mooy day tax nit ki eh, li mu defee ne da koy yëkkati mën naa dem ba suñ borom wàcce ko ci bëti nit ñi ndax alayhi salaatu wasalaam nee na koo xam ne la ngay def dangaa bëgg nit ñi dégg ko yàlla dana ko déggal nit ñi waaye bu jot bu noppee dana la tuutal dana la dana la xeebu loo kon man sama annaasa bi amalihi sama allahu bihi masamia xalqi wa sagarahu wa xaqara lii di njistal bokk na ci ay loram moy day xagn nit ki ab yoolu àllaaxira la ko suñ borom subhanahu wa taala warona faye bu ngistale day melne la ko nit ñey jox ci ay daraja ak fañ koy tek moy nek ak fayam mo taxoon alayhi salatu wasalaam wax ne bashir hadhihi ummata bisana'i wad-dini war-rif'ati wat wa fil ardi faman amila minhum amala al akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil akhirati axirati ko xamne li ngay def àllaaxira tax nga moom rek moo tax moo war a tax nga def ko nga def ko ngir àdduna boo demee àllaaxira doo ci am cër wal yaasu billah nga xam ne kon njistal dafay yàq dafa yàqal nit ki yoolam ba mu waroon a am moo tax subhaanahu wa taala di wax ne yaa ayuha alladina amanu la tubtilu sadaqaatikum man manni wal aza kalladi yunfiqu maalahu ri'a annaas ci it am na xadis boo xam ne abu hurayra tam moo ko nettali muy xadis bu day waar lool ndax day wax ne ñi ñuy njëkk a àtte bokk na ca koo xam ne dafa sëhiid maanaam koo xam ne dafa faatu ci xare dem ci suñu boroom suñu boroom xamal ko la nekk ci tuyaabay jëf joojee ku ko def lam ca waroon a amee ne ko nag yow loo def mu ne ko ma de dama xare ci saw yoon ngir yëkëti sa baat ba shahid ca mu ne ko li nga wax demewul noonu de da nga doon xeex ngir ñu ki dafa ki jambar la té wax nañ ko kon amatu fi dara né nañ ko diri sanni sa war yaz billah ak ko xam ne dafa jang xam-xam di ko jang jàng alquran yawmal khiyam ñu ne ko li day moy payu ku doon def li nga doon def maanaam ki doon jàngale alxuraan di ko jàngale sàkku xam-xam di ko xamle lii mooy ak payam ne ko yow loo def mu ne ah man di ci loolu laa nekkoon dama jàng ba xam wëlbati ko di ko jàngale di jàng alxuraan ñu ne ko defoo ko de defe demewul noonu de waaye danga doon jàng xam-xam ñu ne diw boroom xam-xam la danga doon jàng alxuraan ngir ñu ne kii ko mën a jàng la kon nak amato fi dara ñu ko diri yóbbu sawar yas billah yaa ci yàlla musal ak ko xamne dafa yor alalam Diko ko joxe tabe lol yomul qiyam ñu ne ko lo def ginnaw buñ ko xamalee nak ki tabe ak ki doon def ci yoonu yalla ak joxe lañ koy fay bam gis ko ñu ne ko yow lo def mu ne ah, man kat sama sama alal ji dama ko doon dépenser ci yow ya suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko demeewul noonu waaye da nga doon joxe ngir ñu ne diw ku tabe la kon nag wax nañ ko ba noppi ñu daal koy diri yóbbu sawara wala yaasu billah yàlla ñu ci yàlla musal kon xoolal jëf yooyu ni màggee mooy faatu ci yoonu yàlla ak jàng xam-xam di ko xamle ak alquran ni mu màggee ak am alal di ko def ci yoonu yàlla lépp ngistal mën la koo yàqal kon loolu mat naa moytu te sax boo xoolee ngistal ñu boole ko ci melokaan yi ñuy melale ñi nga xam ne ay naafiq lañ wal yaasu billah di ko melale ñi nga xam ne gëmuñu yàlla wala takunu kalladina xaraju min diyaarihim bataran wa ria annaas suñu borom lu ñu wax ne munafiqin yi bokk na ci seen melokaan mooy ngistal inna al munafiqina yuxaadicuuna allaha wa huwa xaadicuhum wa ida qaamu ila lsalaati qaamu kusaala yuraauna annaas kon yàlla ci yàlla musal kon loolu ni mu bare ay lor bare ay ngaañ moo tax sëriñ bi di dénkaane lool ci ci ci di sellal ak di moytu ngistal di wax sax ñoo xam ne xam nga ci ñoom ne dañuy ngissal daw leen ndax mën naa am ñu wàll la ko ni nga xamee ne ni ngay dawee gaynde na nga leen dawe noonu mu ne wa kun xarisan ala al ixlaasi fi amalin waxshan muraina turran xawfa niiraani xéral ci sellal ci sa jëf nanga ragal ñi nga xam ne ay ngistalkat lañ nanga leen ragal ñoom ñépp ni nga ragale sawara wal taku inda mulaqaatin lahum abadan kaman yulaaqi usulan batna wilaani boo dajeeg ñoom nanga mel ne ku dajeeg gaynde ci biir aw xur mu ne kam amilin amalan yarjul jazaa bihi yawman bihi llahu yajzi kulla insani wa laysa yajzi lahu shay'an siwa nadamin sa'yu riyaai wa tarku yi siyaani mu ne bari na ku jëf-jëf joo xam ne da yaakaar ak fay bis ba yàlla di fay nit ñi te moom yàlla du ko faye dara lu may rëccu mu ne kon bàyyi jëf maanaam jëf joo xam ne jëfi njësal la ak bañ a jëf ñooyam kon koo xam ne mënta nëbbu ci ay jëfam dara lu may lu mu def dana ko ngistal kooku na xam ne nekkul ci dara mu ne laa tax ju taxju annaka fi cheyin isa ajazat yaa saaxi nafsuka an cheyin bi kitmaani kon nag ñu war a góor góor ci yar suñ góor góorgóorlu ci delluwaat jéem ko moytu aka daw aka saafara sëriñ Tuubaa ci masaalikul jinaan mi ngi ñuy jàngal ku ko bëgg saafara noo koy saafara ba waxe ci mbirum deggal ak ngistal da ca tek ne summa dawa uzaini an ta'lama an yadihi kullal kullul umuri fi zaman xamal ne li tax nga do ngistal da ngay xam ne yàlla ci loxom la lépp nek ka ngay def ngir mu gis la manalu la dara yàlla rek mo lay jariñ mo lay lor mu ne wal khalqu la yarfa'u nafsahu yat fa kayfa ghayruhu idhan min al ibad kon nak nit ki na def ngir yàlla moo taxoon mu waxoon ne na nga jëfal suñu borom subhanahu wa taala ah, na nga jëfal suñu borom mi nga xam ne boo ko jëfalee te sellal ko mu fay la moytoo jëf ndax mi ngi mel ne ku yor gànjar goo xam ne la nga ca mën a am bari na lool nga nga wanteer ko ci lu ñàkk solo mooy nga am loo xam ne yaa ngi koy jëf man ca am ngërëmul suñu borom subhanahu wa taala ak ngërëmul suñu borom ni màgge nga di ci wut taggu nit ñi te taggu nit ñi du dara dara kon yàlla ñaan musal ci yàlla suñu borom wërsëgal ñu sellal yàlla yàlla def ñu bokku ci ñi dégg ndigali sëriñ bi di dégg di dégg ndigali ki nga xam ne moo ko fi toogal Cheikh Mouhamadou muntaka yàlla di ñaan yàlla mu yàggal ko fi te wéral ko àggale naanal yépp ak yéenam yépp wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh